aus billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmaani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen ndokkeel di leen balu aq ci weeru tedd wi ak bis bi ñu génn eh, di yëkkati kàddu nag ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ fi Buso ngir eh, indi ab soññee ak ay leeral ci loo xam ne dafay gën a yokk liggéey bi rek ñu tuddee ko soxnay jaspora bi euh, te aju ci muxaddamatul xidma muy xalaat boo xam ne coordonnateur yi nga xam ne ñoo nekk ci bitti euh, ku ci mel ne Serigne Assane Diop ak waa bureau muxaddamatul xidma xalaat nañ ko ngir gis ne liggéey bi di daayira muxaddamatul xidma dëgg la am na ay cellule ci jaspora bi jigéen ñi xëy na daanañ participer ci cellule yooyu ci ci ci taxawaayu góor ñi waaye dañoo gis ne dañoo gis fii ci Sénégal bëri na jigéen ñoo xam ne ci bis bu nekk li tàmbalee gaaw ba ajjuma euh, ñi ngi ñëw di bale si di setal jumaa ji waaye teewul ñi ngi joxe seeni i addiye muy jëm muy jëm ci entretien bi wala ramadan wala waajtaayu màggal wala gàmm ba ci taxawaayu bàq ya léegi nag ñu gis ne jigéen ñi yàgg nañoo jàmbaare ci liggéey jumaa ji ci la tàmbalee ci tojum carrière ba ak yanu bagage yi jóge gaar ba ak ñu doon yanu xeer yi ndokk kenn mënu leen ci ba nii may waxee yow tamit amul benn daayira booy dem ci àddina bi wala ci diaspora bi te jigéen ña duñ ca man duñ ca gën a jàmbare kon nag loo tax daayira Moukhaddamatoul Khidma jàpp ne war naa ubbi benn banqaas xam ne soxnay diaspora bi lañ koy tuddee ngir taxawal ko fépp foo xam ne jigéen nekk na fa ci bi ci bitim réew ba ci biir réew mi te bëgg di participer ci cetug jumaa ji nga xam ne boo nekkoon fii da nga gàddu sag bale di ñëw te sori tax mënoo ko ñu ubbil la benn euh, prox ndoll boo xam ne da nga fa mën di dugal sa addiya nga xam ne jigéen ñi rek ñoo koy jagoo nga xam ne fa la ñuy jaarale seen addiya loolu nag ubbi nañ ko ubbi nañ groupe bi euh, samp nañ bànqaas yi léegi nag mu des taxawaay bi nga xam ne war nañ koo jëmmal loolu tax nag ñu def vidéo bi ngir soññe ci bépp daayira bu nekk ci àddina bi daal te seeni soxna wala ay soxna yu booloo yoo xam ne bëgg nañoo daanañ dégg mu xadimatul xidma ak bëgg a ci liggéeyu jumaa ji Eh, porox ndoll boobu ubbiku na bis ni ki tey incha allahu rabbi ñu ngi ciy soññ ñëpp su ko defee nag li nga xam ne moom lañ dëgmal muy entretien général di waajtaayu màggal gi kon jàpp nañ ne soxna yi kon seen liggéey foofu lay tàmbalee muy lu aju ci wàllu setal gi ñu setal jumaa ji ci ci ci waajtaayu màggal gi ci set gu yaatu ci biir ak biteeg ci kaw ak sensé li fi lakk gi fi yàq yëpp ñu defar ko ba noppi taxaw ñi nga xam ne ñooy taxawu màggal gi ngir sàmm worma ji muy lu mat juróom-benn téeméeri nit yoo xam ne danañ fi nekk loolu lépp seenub dund ñu war a màggale comme ni nit ñi màggale seeni kër loolu ab liggéey la boo xam ne kon jàpp nañ ne jigéen ñi kon mooy liggéey bi njëkk taxaw ci seen ci seen kanam kon daal euh, naka jàkk yoonu murid moom jigéen ñi kenn mënu leen loolu tax nag ñu ubbi bànqaas bi kon ñu ngi ñu cordinateur yëpp ngir soxna yi fu ñu mën a nekk ci biir ci bitim réew moo xam Afrique wala Asie wala Europe wala fu mu mën a doon ñu xam ne bànqaas boobu ubbiku na Euh, ñu ngi leen ciy soñ bu baax te xam ne liggéey bi noonu bàq bu tooy la rek ku ji incha allah da nga am gàncax ku gu teey gu dal kon yàlla ñu sëriñ bi nangul te defal ñu tawfeex asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu